sëriñ mamballa mbàkke sëriñ la mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1905 ci dëkk bii di mbàkke bawal ci suuf si di mbàkke xewar sëriñ la mbàkke doomu soxna at xulli la ak mammoor jaara magi makk kenn rek la bokkal soxna atta xulli ci mboolem njabootug mammoor jaara gi muy ku ñuy wax sëriñ cheikh atta mbàkke ibnu mammoor jaara ak kii di soxna at xulle sëriñ mamballa mbàkke bi matee dal lii di alxuraanul karim la ko waajuroom wa jébbal rakkam jëdi sëriñ tuuba seexul xaddim seexul xaddim mu ngi ci résidence surveillée ci dëkk boobu di njaareem sëriñ tubaa seexul xaddim ginnaaw bu mu ko dalalee alxuraan wàccoon na ko ci daaray alxuraan ji nekk ci njaareem fa la sëriñ maam balla mbàkke jànge alxuraan ba mokkal lu ko jiitu nag maam balla mbàkke kii di waajuram di maam moor jaara magi mag maamam lu ko tuddee muy waajuru maam moor anta sali mbàkke muy maam balla ma ca ngay maam balla ba tey mbokkum waajuram la ndax soxna atta xulle mi ko meññi ku ñuy wax soxna buuba mbay moo ko meññi soxna buuba mbay meññ Mamor Jaara ñoo bokk waajur wu jigéen muy soxna Anta Sali Kan kon moom mbokk la ci wet gune laata muy nekk doom doomam ji di soxna Ummi Mbàkke Baylaat def na ci wolofal gu yaatu ngir sax di gën a leeral ni mu bokkeek waajur moom wii sëriñ Maam Balla wéy desen ni njaareem ci loxoy ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ginnaaw bu mu jàngee alxuraan ak lii di xam-xam ba mokkal nag njaareem googu la ko ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim téye woon mu nekk ci loxoom Seexul Xadiim féetale ko ci njàngum alxuraan mi moor sëriñ moor xari ñang ci kër ñan la seexul xaddim boole woon ca buqutal mu baraka di kër gu mag ñu di ko bindal kaamilu alxuraan bi ci loolu la sax ba nim jote ngërëm ci atum 1926 mu nekk yéeme ci njaareem ba sëriñ tubaa seexul xaddim am na benn bis mu boole léegi moom ñeneen ñaari doomu aadama tëj leen cib néeg booba nag néeg ba dafa am lii di ay fel ak lii di ay ŋar ñeneen ña dañoo mujj génn néeg ba bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñëwee laajte maam balla ana ña ca des mu di ko wax ne génn nañ seexul xaddim di ko wax ne juróom te de xanaa bu ko kenn ka jëlee mu war a doy kon mu nekk ku seexul xaddim faggul moom maam Balla Mbàkke ba tey ci njaareem googu sëriñ tubaa seexul xaddim mas na faa woolu kii di maam la di ko wax ne waxal te ji loo bëgg ma defal la ko sëriñ maam Balla di ko wax ne nangul ma sama taalibe te defal ma mbootu taalibe kon ku nangu woon kilifteef la moom maam la Mbàkke loolu mu tax na mu nekk ku kiimaane ba ñi mu bokkal waajur nekk ñu ko bàyyi xel rawatina kii di Cheikh Modou Moustapha Mbàkke mi wuutu woon xaadim ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba ci atum 1921 waajuram wa di Mamoor Jaara magi mag génn àdduna sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim wax sëriñ Mbàkke sa mu dem taxawu ko mu wéy nag desandi ci loxoy Seexul Xaddiim ndax kan moom lañ ko jébbal ba ci atum 1926 Mam Balla Mbàkke jot ngërëm ca waajuroom wa sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim woolu Mam ba mu ñëw mu boole ko mbooloo ne ko mu dem ci dëkk bu ñuy wax xulle xulle nag tub nijaayam la di ko wax soo demee nga yeesal ko te féete fa sëriñ maam Balla Mbàkke foofu la nekk nag di bay di liggéey di tarbiya ak mbooloo mi ko seexul xaddim booleel ngir bu ëllëgee kat li ko seexul xaddim defal moom mu defal ko mbooloo moomu fa la nekk ba 1927 ku bax ki sëriñ Touba seexul xaddim génn lii di àdduna mu fob léppam nag jébbal taawub sëriñ Touba seexul xaddim ba di Cheikh Modou Moustapha Mbàkke ak kam doon xoole waajuram di sëriñ Mor Soxna dëkk bii di xulle ci wetu dëkk bii di taxawale lii di kër ñu boole ko soxna suñuy wax soxna asta xulle soxna asta xulle sax moo jur soxna ummi bàyyi laat mi ñépp xam ci Touba mu wéy desandi fa di liggéey ba ci atu 1927 ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim génn lii di àdduna ci atu 1927 boobu sañcaat na beneen dëkk bu ñuy wax ngeeraan soriwul dara dëkk boobu di xulle mu def ko ni mu defoon xulle moom itam di bay di liggéey di tarbiya lu mu am yi taawu sëriñ Touba Seexul Xaddiim di Cheikh Modou Moustapha Mbacke ak euh, ka muy xoole waajuróom wa di sëriñ moor soxna sëriñ moor soxna moo wuutu mam moor jaara ci atum 1921 ba atum 1934 sëriñ cheikh asta waalo ibnu maam moor jaara ñëw toog ñaareelu xalifa maam moor jaara sëriñ cheikh asta waalo moo nekkoon nag ci dëkk bii di misra moom lañ fa dëeloon waaye ginnaaw bu mu toogee xalifa maam moor jaara nag la jógee misra ñëw ci dëkk bii di mbàkke xewar cheikh mamadul mustapha mbàkke ak sëriñ cheikh asta waalo jël maam balla nag ci dëkk boobu di xulle ak ngeeraan yóbbu ko ci sax ñu naan misra ak maam Balla mu wéy nekk misra ci ndigalul cheikh Modou Moustapha Mbacke mi toog toogaayu xaadim rasool ak sëriñ cheikh Assa Walo mi toog toogaayu maam moor Jaara misra nag nekk dëkk bu metti ci maam Balla ndax ndox amu fa woon aw yoon itam amu fa woon waaye maam Balla fexe na ba bënn fa teen ba nëgëni sax teen ba mu fa bënn ma nga fa teen boobu sax lii di waa daaru muxti ak waa Touba toll na temps yoo xam ne ni fa lañ daan naane ji mu wéy desandi misra di liggéey def misra comme ni mu defoon dëkk yim sanc muy xulle ak ngeera nasaraan mu nekk misra ak mbooloo mi ko cheikh Modou Moustapha Mbacke booleel ak mbooloo mi mu yoroon di liggéey lu mu am yit leen di sëriñ cheikh assawalo ak cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mbooleem njabootuk ku bax ki sëriñ Touba seexul xaddim ak njabootuk Mamor Jaara ak yoonu muriditim fekk nañ ko ci dëkk boobu di misra ngir di ko nemmeeku mu nekk nag ko kiimaane moom maam Balla Mbacke mu wéy desande misra ci ndigalul cheikh Modou Moustapha Mbacke cheikh Modou Moustapha Mbacke sax faboon na doomam joxoon ko kii di maam Balla Mbacke ngir mu dëkkoo ko muy ku ñuy wax soxna maam Faati Mbacke bintu cheikh mamadul moustapha mbàkke soxna maam faati mbàkke ko joxoon mook sëriñ dan xariloo ñoo bokk waajur wu jigéen soxna maam faati mbàkke moom sax la cheikh mamadou moustapha mbàkke fayee soxna maam faati mbàkke bintu seexul xaddiim soxna maam faati mbàkke am na kii di maam balla mbàkke doom ay cheikh sax la woon muy soxna musli ak soxna muumi mbàkke ginnaaw kóllëre googu mu amoon ak cheikh mamadou moustapha mbàkke amoon naa kóllëre kii di cheikh mamadul faadal mbàkke ba cheikh mamadul faadal mbàkke daana ñëw ay yoon misra di ko seet si ba kii di sëriñ maam balla mbàkke Mbàkke defoon na ay way sax ci Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ngir ak jikkoom ñu teewlu way yim ci def minni salaamun tayyibun yasdari xadra ila faadilin man faaxa axraanuhu xadra fa minni salaamun tayyibun yasdari xadra ila faadilin man faaxa axraanuhu xadra salaamun yudiimul bayni wa baynahu wa yanmi safa fi haadihi ddaari wal uxra salaamun yudii bayni wa baynahu wa yanmi safa fi haadihi ddaari wal uxra wal faayiqul axlaami hilman wa suddada wa akmaluhum minhum faqran wa ahsanuhum suhra ginnaaw cheikh mamadul faadal mbàkke ku amoon relation ak kii di cheikh mamadul basir ibnu sëriñ tuba seexul xaddiim la ba benn doom bi mu am sax cheikh dul basir mbàkke la ko tudde moom sëriñ mam balla mbàkke ganeen njabootu ku baax ki sëriñ tuba seexul xaddiim amante woon nag ñoom lii di relation ndax sëriñ tuba seex saalihu mbàkke wax na njabootug mam balla mbàkke moom bi mu xamee na moog mam balla mbàkke bokkuñu soxna faat jaxate yàggul bi sëriñ mam balla mbàkke di ci loxoy ku baax ki sëriñ tuba seexul xaddiim sëriñ xadim dafa woolu woon kii di soxna fat jaxate ba mu ñëw mu di ko wax ne fobal maam bàll mi boole koo gone yi yor mooy ñi soxna fat jaxate yoroon jamono jooju ci tuut tànk sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke wax na sëtub maam bàll mbàkke muy cheikh abdul axat mbàkke ibnu cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu maam bàll mbàkke di ko wax ne soxna fat jaxate moog maam bàll la daa boole benn lal bu ñuy tëdd loola itam taxoon na mu yaakaar ne moog maam bàll ñoo bokk soxna fat jaxate lii moom sëriñ tuuba seedeel na ko njabootuk sëriñ maam bàll Balla Mbàkke ko amoon relation ak maam Thierno Ibrahima Faati la miy waajuram ndax maam Thierno Ibrahima Faati ak maam Mor Jaara ñoo bokk maam Mor Anta Sali Mbàkke loolu itam taxoon na maam Thierno Ibrahima Faati defoon ko doom ba keroog sax bi muy jóge Ngeeraan ak dëkk bi di xullee ngir ñëw Misra maam Thierno Ibrahima Faati bëggoon na ci lool loolu itam taxoon na maam Thierno Ibrahima Faati yoon wi di Daaru Moxti Tuubaa moom la ko xàlluloo Sëriñ Cheikh Sidil Moxtaar ko wax ne guddi gi maam Balla di tàmbali lii di xàlluw googu daaru muxti laa fanaan maam cheikh anta mbàkke boroom dërëm ak ngërëm moom itam waajur la ci maam balla mbàkke maam balla mbàkke ko amoon nag moom relation la maam cheikh anta mbàkke faboon na doomam sax jox ko ko muy ku ñuy wax soxna ami mbàkke bintu maam cheikh anta mbàkke keroog bi maam balla sax di génn àdduna ci dëkk bi di daaru salaam la génnee àdduna ak kóllëre gu mu amoon nag maam cheikh anta mbàkke rawatina taawu maam cheikh anta mbàkke ba di sëriñ moodu maamun mbàkke ci loxoy sëriñ moodu maamun mbàkke ci daaru salaam la génnee àdduna doomu sëriñ mbàkke soxna muy ku ñuy wax soxna ami mbàkke bintu sëriñ mbàkke soxna soxna ami mbàkke mook maam balla mbàkke misra am nañu ak njaboota ñu man cee ràññe nag sëriñ basiiru mbàkke ginnaaw misra googu maam balla sancaan na beneen dëkk bu ñuy wax daarul minan daarul minnan sax mi ngi ci ginnaaw misra dëkk boobu minnan lañ ko gën a xamee fa la sëtam bii du cheikh abdul ahad mbàkke nekk di liggéey moom itim sëriñ maam balla mbàkke des misra di liggéey ba lii di jumaay tuubaa sax amoon na ci aw sas ndax soo demee ci wolofal bi cheikh di tagg mbooleem ñi nga xam ne nii amoon nañ aw waar ci li nga xam ne nii moom mooy jumaay tuubaa ji ma ngi cay tagg Mame Balla Mbàkke bisub talaata la moome woon su ngeen demee ci wolofal googu daa dégg la ko Cheikh Moussa ko wax moom Mame Balla Mbàkke mu des misra moo fa bënnub teen moo ko yàkkali moo tax itam ñu bari gën a xam dëkk bii di misra ba looloo waral sax dëkk boobu ñuy wax misra ak Mame Balla passeefu googu mu passeefu woon farlu googu mu farlu woon tax na itam lu bari ci yoonu murit itam tudde nañ ko doom ngirum njàmbaarteem moom Mame Balla Mbàkke mbàkke mam balla yi bari lool ci ñim bokkal xaadim rasuul ñu ràññee ci magam ja di sëriñ cheikh atta mbàkke tudde na ko doom sëriñ baara xuraja mbàkke tudde na ko doom sëriñ mamor lappe tudde na ko doom sëriñ jëmmu siise tudde na ko doom sëriñ jëmmu siise mi nag ñu ngi ko gën a xam ci sëriñ jëmmu faati sëriñ ma yaasin jóob ci taayif jóob tudde na ko doom sëriñ ma yaasin jóob mii ci seexi maam ceerno ibrahima faati mbàkke yi la bokkoon sëriñ mam balla ñing di jànkatu xasida itam moom lañ ko tudde ak ñeneen ak ñeneen ñu ko tudde doom ndaxuk farloom akuk jàmbarte wooteem sëriñ maam Balla Mbàkke ku daa bind la ndax ku bari woon lii di xam-xam la ba bind na sax xasida guñ tuddee kasbul xadim kasbul xadim gii nag ci tarjimaanu xasida ga maam Balla ma ngi ciy xuppe képp koo xam ne nii nangu woo jaamu suñu boroom mu lay wax ne bu ëllëgee loo dajeel bu ko jooytu kenn na la leer na yow yaa ko teg sa bopp ñu teewlu tarjimaanu xasida gi yaa nafsu tuubi ila arrahmani wansari wala tamili ila al ahwaai walxarari wala tamili lima lam yurdi xaaliqana wa ma yajurru ila al aswaai waddarari taskuril yawma li akwaani jumlatihim tubdal xafaaya wa tarmin naaru bi sarari lam yuxne an walidin awlaaduhu waxinan fil yawma aksartu lan zaari wa sumari yawmun huwa al yawmu laa yundi xibaada bihi ila al xibaadatu bil ixlaasi wa suari lamma ajastu an il ixlaasi fi xamalin axlastu bal muxiisil mafsoxin wasari loolu mooy tarjumaanu xasida googu di kasbul xadim ñu teewlu nag xasida gi xasida gi nag kii di maam Balla Mbàkke mi ngi ciy tàgg ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim muy wax ne képp koo xam ne nii da ngay wër kaneen ku mel ne xaadim rasuul bay boo nga wëri ko faneen ndax duutoo ko gis te xaadim rasuul kenn la woon suñ boroom rek moom mooy ki ko tànnoon ñu teewlu xasida gi sayxun awaddiinun wa dunya bihi sarafan wa nafuhu am ahlal badwi wal xadari sayxun awaddiinun wa dunya bihi sarafan wa nafuhu am ahlal badwi wal xadari fala taxisu bisa daati wara karaman fa kayfa yanxaasu lajju bahru binnaari in jiitawu saayi wa farsafahu mawdan aw jiitawu saayi lan tarji ma safari kam jahilin xaafilin fi diini اختار به يهدي إلى الغير ونهج قوي مجري وجاهد مارد لا قساوته من وحشه فيرى كالغائب العذر وشافد قامد في الناس مغتهر به قد أثرت فاح غير مغتهر وساقب راحب في قوت ليلته أمسى مليا به محوان منتظر ورب حار حاراه أقبشه يطال من فاخرات القش والحبر وكم قوى الدار من وافاق يقدمه فسيرت بعد مرفوعة الجدر وكم سخى الخمر من فائداته حكما القرآن من أجلها زلت الأخبار في الخبر قل الذي رام وسيق متعهدا أخسرت فما يستوي أحمى وذو البصر قل الذي رام وسيق متعهدا أخسرت فما يستوي أحمى وذو البصر كلاوم البدر في دوئك شمس دخن في طلحة الزمز يغني ما يغني عن القمر كلاوم البدر في دوئك شمس دخن في طلحة الزمز ما يغني عن القمر سعين نصاراهما أبدأ بينهم من خارقات ومن آئن لمختبري سعين نصاراهما أبدأ القضاء بينهم من خارخات ومن آي ومن لمختبر مثل جنود التي راحت إذا وقل إلقاء في البحر والديران والبقر ومن حجائبه ما سمى ألفه في خدمة المصطفى المختار من مدر آبوا به بعدما أحياؤهم فخدا بردا يقوم مقام الجمع والنظر لولا تصبره والحلم أهلككم ولم تخف لهم إلا من على أدري لكنه ورث المختار في حمل وفي مقال وفي خلق وفي زير أقرط بالحج أد أدنى مكارمه وما خطرت عن الإتيان بالحسر فأسأل الله رب العالمين به كوني شهيدا طويل للباح والحمر ginnaaw xasida googu di Kasbul Xadim kii di sëriñ Maam Balla Mbàkke bindaan na ganeen xasida di ci taggaat nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ba tey rek dañu nettali jikkoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim xasida gi mi ngi tudd Xutbul Xadim ñu teewlu xasida gii di Xutbul Xadim Xutbul Xadim Mustafa Sihaari wa xamdati fi sirri wal jihaari mahabbatul abdil qadim القديم سادي وحدتي للقبر والمهادي محبة العبد القديم سادي وحدتي للقبر والمهادي وحبه مسيتي وفقري به ارتقاي وصلاة عمري حمايتي عن الأسى ووري وحروتي حب القديم فردي إن اضطرام شوق والوداد كادت تصيب حب عبة الفؤاد xasida googu nag di xutbul xadim indi luñ leen léppi xasida gi dañ leen doon wax ne rek sëriñ Mame Balla Mbàkke bindkat la woon liggéeykat la woon nituk suñu boroom la woon te ku kiimaanee la woon mag magam ja di sëriñ moor soxna bi mu génnee àdduna ci atu 1934 sëriñ maam Balla Mbàkke marsiyal na ko ñu teewlu marsiya bi mu defoon ci magam ja di ko jooy hiya al aqdaaru min rabbi samaai fama ahadun yafirru min alqadaai hiya al aqdaaru min rabbi samaai fama ahadun yafirru min alqadaai fa man yarda biha fi ruuhi qalbin wa man yasqat alayha fi xanaayi qadarna doxra fi ma saamana min mulimmatin wa tabrihi ixtidaa'i fama jalbul bala waddurra minhu wala dafqil madarrati walbalaa'i yudakkiruna awaaqibahu dawaman wa yusinu bilwaadihi wa bilsanaa'i wa in lam yucti bizran fii sabaahin lanaa illaa wa naxsoo fii samaa'i fa faqdi zayqi ahmada soxna ruskun musiibun lirrijaali walinnisaa'i fa faqdi zayqi ahmada soxna ruskun musiibun lirrijaali walinnisaa'i tadacdacat al-asbaana anhaa simaahaa sunnati hati walxayaa'i ahaaza arraxdu bitabwiiti baatin وأمض الزعب تنزل بالحياء إذ بكت الزحاب عليه قلنا لقد بكت السماء على عماء وتعذر فيما دامعا فكل يعني إلى مراكل الافتراء فخذنا صيدا سمحا يواسي ويعمل كلفة من كل جاء وينزي أعنفا علما وكحبا سعا وسما ألف وفاء قذيب الرحب مقراء سفيت لذيذ الطعم عند الأصدقاء همام ليس يصدر حرف شيء بلا ميم ولا ضال وحاء لقد وارت طرى من طوارت مناقبه ولا حسن الصناء فأسكنه جنان القلب ربي الخالق والأرض والسماء فأسكنه جنان القلب رب الخالق والأرض والسماء mu wéy jox boppam nag ñaareelu xalifa waajuram di sëriñ Cheikh Asta Waalo Mbàkke mu wéy desandi misra nag di liggéey ak mboolem dëkk yi nga xam ne ni nekkoon na fa ba ni mu génnee àdduna ci atum 1944 bi mu tëddee lii di feebar bi ko war génne lii di àdduna dafa jóge misra ñëw daaru salaam salaam ci wetu magam ja sëriñ moodu maamun mbàkke ba foofu sax la génne àdduna ci daaru salaam sëriñ mam balla mbàkke mi ngi génn àdduna bisub ajjuma ñaar fukki fan ak ñett ci weer wii di weeru baraxlu ci atum 1363 ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wii di weeru baraxlu ci atum 1363 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 18 août 1944 vendredi 18 août 1944 ñu yëgal ko ki toog toogaayu sëriñ tuuba seexul xaddim di cheikh mamadul mustapha mbàkke ak xalifa waajuram di Mammoor Jaara di sëriñ Baara Xurëja Mbàkke cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi toogoon toogaayu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag moo ko jullee ñu denc ko ci wetu waajuram wa ci Mbàkke xewar bisub keroog cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke seedeel na ko lu am solo ne gor mi ngi nii tëdd gor dem na gore dong nag moo ko tax a génn lii di àdduna ndax su amoon ñeen fukki at ka kenn du ko yilif ci kaw suufa ci fanweeri atam juróom-ñeent lañu ñu dëddoo Basiir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo fi toog ci atum 1944 ba ba nëgëni sëtëm bii di Abdul Ahad Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ibnu Maam Balla Mbàkke moo fi toog ñu koy ñaanal suñu boroom guddal aw fanam te yàggal ko fi ak ay bàjjanam di soxna Ummi Mbàkke Baay Laata ak mbooleem ñim séqal Sëriñ Maam Balla Mbàkke ñépp Sëriñ Maam Balla Mbàkke nag am na bis buñ koy fàttaliku muy ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wi di weeru baraxlu la waajur wa muy sëriñ maam Balla Mbàkke ak kii di sëriñ Basiiru Mbàkke mi nekkoon doomam màggal gi nag njaboot gi ñu ngi ko jàpp ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom benn nag ci weeru baraxlu ngir dawale ko ñaar fukki fan juróom ñett nag ci weeru baraxlu ci bisum ñaar fukki fan ak juróom ñett nag ci weeru baraxlu nag la sëriñ maam Balla Mbàkke génn àdduna waaye njaboot gi itam nag ci ñaar fukki fan ak juróom benn nag ci weeru baraxlu nag lañ koy màggalal wàññi nag ñaari fan nag ngir dawale ko nag ci bis bi mu làqu woon màggal gi nag ci Tuubaa Misra nag lañ koy amale ñuy cheikh mamadul moustapha mbàkke waxoon na gor rek moo ko tax a génn lii di àdduna yàlla na suñ borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ borom saafara amiin suñ borom saafara amiin saafara